man la Alaaji Gadiaga jege euh, ba Ndakaaru ngir tàbbiwaat si liggéeyu lay Sow bi nga xam te ni mu ngi koy def chaque année euh, di jëf joo xamante ni yàgg na koo jëf euh, jëmale ko si yoonu Serigne Touba si jamonoy Serigne Saliou mu tàmbale ko si juróomi camion ba tey jii mu yegg si 48 camion. fan yi weesu rek yàggul lool euh, defe naa ni premier lot bi ñëpp gis nañ ko mu dugg euh, dooroon ci fukki camion tey tamit mu yónniwaat ñu mu ne ndigalu sëriñ bi de ñor na ko ñor goo xamante ni balaa muy am lu ko neex dëgg mu yemb ni ko sëriñ bi bëggee ba tax na mu ni daal euh, ban neexu xolom mooy mu defee ko ni ko sëriñ Muntaxa bëggee waaw mu doxee ko noonee dëgg yàlla ànde kook ñu ngi ko war a àndal ba tax na mu ni daal yéeneem tey jii si mbir mii nga xam te ni jëf ji nga xam te ni euh, sëñ Muntaxa si boppam yàlla na fi yàgg Mbàkke te ànd ak wér da ko koo jagleel da ko bis ni ko tey kat da kaa siyaare mu ne ko tey bis ni ko tey de lii def nañ ko muy jagle si yoonu sëñ Tuubaa bi loor boobu ba léegi kat mu ni fépp fi nga xam te ne rek Touba ak li ko wër am na yéene kenn dootu fa jëndati mat na xam nañ ni mat ni muy jafe si réew mi rawatina si jamonoy nawet gi nga xam te ne moom lañ nekk si wàllu màggal gi mu ni sama yéene daal mooy naam sëriñ bi jagleel na ma ko mooy fépp fi nga xam te ne rek mbana mu ngi fay tàq si Touba ak li ko wër ma distribuer fa mat loolu moo waral tey suñu ñëw sunu tew gi tey jii wax dëgg yàlla lool yi kat doon jëf joo xamante ne kat ba mu koy jëf ba tey ji seen tiwu si dara waaye cofeel la si digal digal loolee sëñ Tuubaa ne woon euh, sama sama sama diine mooy bëgg yàlla diine ya hubbullaahi sama diine mooy bëgg yàlla moom it de si loole loolu lay dox moom bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuubaa tax na lépp lu muy def seen tiwu si dara lu dul ngërëmu sëriñ bi rek ba tax na mu yónni ñu mu ni daal ndigal li bëgg moom mu laal suuf balaa ñuy am jàmm ñun nañ ko defee ni ko sëriñ bi bëggee bu nuppi ñu doog am jàmm waaw loolu moo waraloon teew gi tey. diggee ba ba tam ba ba Tambacounda waaw ndax wax dëgg yàlla boo leen gisee lii xool matt mi xam ne matt mi lenn lu nduroog lu tooy amu si loole nag li ko waral maanaam li ma waxoon léegi rek fi mu teg ndigalu sëriñ Tuubaa yi ndax ba ko sëñ Mountakha waxee de wuteewu ko ak ndigalu sëriñ Tuubaa xam na ne moom mooy sëriñ baa tey si kaw suuf mu ni kat ginnaaw loolu am na amatuma toogaay buñ màggalee ba sa suba sa laay tàmbale ndax bañ bañ gàmmoo la tàmbale taxañ gi di taxañ ut ay ndawam ñu koy taxanal si biir àll bi ba pare teg leen si ay conditions yu leer ne kat lépp li nga xamante ne mooy li li li li di tere si bant bu tooy bu leen ko laal loolu moo waral lii ba nga ko gisee du loo xamante ne da kaa wàcc ci benn weer wala ñaari weer waaye ay weeri weer laaj waaj waaj na ko ngir maanaam liggéey sëñ Tuubaa bi gën a mën a ñoŋ dem sa kaw waaw loolee daal moomu kii ndax ñoom ñëpp ñu ngi jógee Tamba waaw sa chauffeur saa ngi nii ñoom ñoo ko indi wax dëgg yàlla ñu doon loo xam te tamit ñu doon ñu yéwén waaw ay taalibe bëgg sëriñ bi lool wax dëgg yàlla ñu ñëw ànd ak mbëggeel goo xamante ni cofeel goo xamante ni foo ko natt rek weesu na ko waaw loolu moo waral bi waaw lim bu ñëw euh, fukki camion moo njëkk a ñëw fukki camion ak ñaar ñawaat na to noonee kat na na nan lañ ko nar a dérouler maanaam di ko circuler ba 48 camions yëpp mot ngir mën a mote gan yëpp tas si biir Touba si mboq yeeg fépp kenn bañ am problème mu mat loolu daal moom mooy yéeneem. waaw njëkkoon nañoo dalloo fukki camion fii tey jii waxagu nañu fukki camion ak ñaar yoo xam ne war nañ ko wàccewaat léegi. waaw moom la moom day sant rek taalib bi mi nga xam ne moo waral lii lépp ndax euh, liggéey sëñ Tuubaa yaatu na kenn ku ne te rawatina liggéey sëñ tubaab bi li ci ëpp doole mooy matt moom xam naa ne am na ci doole lool ndax euh, gannaaw ngeen ne euh, kenn ku ne na ab xéwlu te lay xéwlu gën a la koy waral mooy matt moo koy defar ba mu gën gën a neex ak jëfandikoo daal moo tax daal dañ sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne lay saw taxawee na ko fi te depuis bi sëñ bi tàmbalee liggéeyam bii ci jëmmi sëñ Tuubaa bii mu mu nekk euh, moom mii nii la koy defee te itam fépp fi sëñ bi war a defee mat rek ñu ngi jël di fa yóbbu ak ñi nga xam ne dañuy dikk di laaj ñu leen koy jox te loolu rek mooy liggéey li ci ñoom waaw.